que ni vous êtes de la non je suis d'accord ça moom. je de Benno Bokk je suis de Benno Bokk je dirige le mouvement vous n'avez pas claqué la porte de, du PDS mais vous avez rejoint la mouvance présidentielle. je soutiens Amadou comme j'avais soutenu Macky Sall en et ça il faut que ça soit clair en 2019 le, le PDS n'avait pas de candidat parmi les cinq candidats qui étaient là il fallait que ma choisir kenn kenn kooku c'était Macky et le dis je le répète et je le répète nekk libéral rek. bon bu Idriss non cest ma leen gisee ak seen jaar-jaar. mooy libéral bi rek parce que bi lépp mais aussi parce que Idriss tout ça ensuite expérience bu am bu dul woon Macky Sall moom lay choisir bu dul woon moom aussi ma choisir euh, euh, maître Niang bu dul moom aussi ma choisir peut-être le pur. mais moom euh, la coalition Sonko dama ko choisir ça moom dama ko def fële. bu loolu aussi mu mu xëlee daanu. non coalition Sonko bu bu desee bu dul loolu rek. est devenu incontournable. ñu teew da ngay wax ci ñoom ñu bañ a teew. non ça non xam nga ni ku ne da ngay am sa gis-gis li nga bëgg ak li nga bañ ak li nga bëggul excusez-moi du terme bu dee coalition Sonko la ma dem Casablanca toog fa wala. ma dem mais loolu xel da koy nangu parce que. il y a un antagonisme très voilà visible. looy maanaam donc antagonisme bi mooy PDS nga bokk. vous avez géré le pouvoir. mais le PDS ba léegi PDS mooy gérer pouvoir. parce que ñi gère pouvoir PDS mais le PDS a ñu leen li ñuy le PDS c'est totalement différent. parce que ñu bëgg non une partie du PDS des gens ont quitté le PDS. pour rejoindre Macky. pour rejoindre Sonko. y en a y a les gens qui ont quitté le PDS pour rejoindre Khalifa Sall. parce que seen ancien président groupe parlementaire. Euh, euh, rejoindre na coalition Diomaye. avant Diomaye il avait déjà claqué la Dolly Bara Dolly mm-hmm. Cheikh Bara Dolly rejoindre na coalition Diomaye Bara Gaye rejoindre na fi Yewwi euh, Yewwi Askan Wi bi est toujours Ousmane Manga rejoindre na Pastef ak ñeen ak ñeen ak ñeen ah, ay ay euh, euh, Aïda Mbodj rejoindre na fi Sonko c'est des anciens c'est des du PDS mais aujourd'hui pourquoi vous voulez que ces gens-là dem xool seen fu leen nekk ngeen bëgg man man man ma dem xool man du ma xool fu ma neex moi je dis et ces gens-là ont quitté le PDS man c'est pas quitté moi je dis aujourd'hui que le PDS la direction du PDS dafa war a dem jege Macky Sall ça ça c'est mon combat dans le PDS boobu woon na sama combat et maintenant aussi mon combat continue que la direction du PDS. na dem jege Amadou Ba na dem jege Amadou Ba et ça aussi je, je suis prêt à m'opposer avec ak contre Karim sur ça dans le PDS pour pour créer même un courant. dans ce parti là. yaa ngi tapas boobu ba léegi. non tapasuma créé nga fi sa mouvement ñu lay seetaan. créé nga fi sa dem nga fi local ànd ak waa. xam nga aujourd'hui jël fi effigie. père Wade mais xam nga tey leer na tey leer na bu aujourd'hui ba fi ñu toll nii la direction du PDS n'a n'a pas encore pris position. waaw direction ba ñu position. mais a mais mais aujourd'hui y' a des mais aujourd'hui y' a des qui sont en train position pour Amadou Ba. et moi je travaille pour que ces ces individualités gën a yokku gën a bari parce que moi je trouve que aujourd'hui suñuy suñuy ah, partenaire. d'accord yow loolu sa mission. déboucher gars pour ñu. su ma ko mënee ma ko mission man mission kenn def ma ko mission maa ko jël loolu. parce loolu laa gëm loolu laa gëm gëwuma ñeneen nii.